gis nga sama grand yi gars yi ñoo ma ñoo ma nandal dooleel ma ne ma waaw affaire bi léegi da war a ñeme. Ah. waaw affaire bi du daw ay piqûre quoi xam nga lii dafa doon loo xamante ne nii tey képp kuy doomu aadama war nga ko mën a def quoi ñëw maye deret waaw parce que tey am na ñoo xam ne ñu ngi tëdd ci lalu hôpital yi ñu ngi ko soxla et tout moo tax ma bàyyi lépp li may def xam nga ma waaw ma def sama bopp comme citoyen yëpp waaw ñëw maye si deret daal loolu moo fi indi quoi. waaw loolu newoon sama message. waaw loolu newoon sama message. maye deret wala wala léegi rajo ñoom ñëpp laa woo fu mu toll nii pour ñu ñëw maye deret parce que xam nga waaw xam nga maye deret moom bokk la xam nga di dajeg <laughs> nah, ni si mbedd ñu lay vacciner quoi waaw bii moom waaw du ma wax dara lu wax gars xam nga na ñëpp ñëw maye deret quoi parce que loolu mooy doon li nga xamante ne nii lu baax la ci suñu réew te mooy baax tamit ci àdduna parce que tamit képp kuy doomu aadama oh, war nga mën a maye tamit quoi parce que am ñu tëdd ñu soxla waaw loolu laa amoon daal message boo xamante ne dama ne woon ko lancer quoi waaw mais la la vaccin <laughs> waaw waa daara ja gaa ngi leen di dégg bu baax ñu ngi leen waa daara ja ñëpp a ngi fi de waaw ñëpp a ngi fi de tey kon dawuñu vaccin tey ñëw pour maye deret eh, nga vaccin ak maye deret bokkul quoi da bokkul vaccin yi moom <laughs> dañ ko bàyyeegum ñu wax ci waxu maye deret bi <laughs> waaw am leen jàmm yéen tamit ah jaayëf gra